Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Noto, Madame la PCA, Marcel soeur mon cher ami et frère, le directeur du BOSS, Monsieur le directeur de l'agence régionale de développement de Thiès, Sonic Douane, notre ami notre directeur, parce que moi je suis maire, comme il l'a dit tout à l'heure, entre lui et moi, donc euh, nous avons double casquette, parce qu'il est le directeur de la région de Thiès, et moi je suis le maire de Tasset. Mais moi aussi, je suis le secrétaire exécutif du PNL et l'AMD de Thiès est une agence un bras technique du PNL. Donc, monsieur le directeur de l'AFD, merci. Monsieur le représentant du ministre conseiller en fait, Monsieur le représentant du directeur de la société Mara, Monsieur le chef du service développement communautaire, Madame la présidente la Lyon, ma soeur, ma promotionnaire, Monsieur Mamadou responsable responsable affaires dans la commune de Caisse. Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames, les membres des groupes de promotion féminine, la presse, chers invités, nous voilà réunis pour procéder à la clôture d'une importante tournée économique du comité consultatif départemental des femmes de caisse Notre département, avec le dynamisme du réseau des femmes du département de caisse en partenariat avec la société MADA, vient encore de franchir une étape décisive dans la politique de l'automatisation des femmes par des activités génératrices de révolution. Et monsieur le représentant du directeur de la société, je voudrais saisir cette occasion que m'offre la clôture de cette tournée économique du comité consultatif départemental pour vous féliciter d'avance par la confiance placée en vous. D'abord par les populations et ensuite par vos membres respectifs, par le choix des distinguer personnes à la tête de cet important réseau. J'ai personnellement apprécié à sa juste valeur la manière dont les choses se sont déroulées, car les initiatives et stratégies de développement local se concentrent sur l'essor à la fois de l'économie d'un territoire et des emplois à l'intérieur de ce même territoire. Essentiellement par des mesures de création d'entreprises et d'emplois. Sans oublier l'action sociale et la valorisation des ressources humaines. Le tout dans le cadre d'une perspective intégrée. J'ai bon espoir que le comité consultatif des femmes du département de caisses opposé d'organisations féminines actives dans des secteurs d'activité relativement diversifiés sera trouver les bons ressorts pour propulser un développement économique local au profit de ses membres. J'en juge par vos interventions multiples qui s'articulent autour de la production et de la transformation de produits locaux tels que les céréales, le lait, les jus locaux et j'en passe. Pour arriver à ce stade de professionnalisation de vos activités, il faudra relever le savoir-faire de vos membres afin de mutualiser vos efforts et moyens à travers un partenariat dont le but est d'élever structurellement le niveau organisationnel et de création de revenus au profit des populations des territoires de couverture. Ensuite, la mise en place des dispositifs financiers permettra d'une part d'accompagner les côtes d'initiatives économiques, individuelles et collectives structurantes du potentiel économique du département de Thiès et d'autre part de combler un vide en complément et en apportant la pierre qui manquait à l'édifice de modèle de développement économique sensible au genre. L'adhésion des collectivités territoriales montre toute la pertinence de vos actions structurées au cours de la mise en place de réseaux professionnels de promotion de développement économique local. Je vous encourage personnellement. Cette action nous a permis d'apprécier votre part politique réelle, de mesurer votre influence auprès des populations. Cela atteste aussi, il faut le dire, de l'adhésion de notre peuple pour la massification de l'action du président de la République. Je voudrais donc solennellement vous redire toute ma satisfaction de voir dans notre pays l'avènement d'une nouvelle ère marquée par des regroupements pertinents, utiles et solidaire. Mesdames, Messieurs, si j'ai pris l'engagement de vous accompagner dans votre initiative, c'est essentiellement pour les raisons suivantes. C'est parce que votre structure œuvre incontestablement en direction d'un homme une vision et des actions. L'homme est une icône de la démocratie. C'est la synthèse des causes justes. Cet homme est le président Macky Sall qui œuvre inlassablement pour le rétablissement des déséquilibres sociaux. Cet homme mérite soutien et considération. Toute action alors dans le sens du renforcement de son œuvre va rencontrer mon adhésion. La vision est bâtie autour du plan Sénégal émergent, dont l'un des piliers essentiels est le renforcement du capital dans lequel votre mouvement appartient. Le PSE, document de référence de notre pays en matière de développement économique et social, accorde une place essentielle aux travailleurs du tissu économique dans sa structuration va booster le développement et porter notre pays sur les chantiers de l'émergence. Enfin, les actions du président de la République en matière de couverture de la maladie universelle, le renforcement de l'action aux services sociaux de base, la réduction du coût de l'électricité, l'élargissement de la base solidaire dans toutes les actions publiques, la mise en œuvre des projets et programmes, par exemple le PIDC, le PIMA et d'autres projets. Le saut de l'urgence, le renforcement de la protection sociale, la promotion de la transparence dans la gestion des ressources publiques, bref, des actions parmi tant d'autres qui renforcent ma conviction de soutenir son excellence le président Macky est une œuvre utile. Vous le voyez donc, vous détenez, entre vos mains ce qui fera demain, s'il est bien géré de manière efficace et efficiente, le développement du pays. Je vous parler d'un réseau solidaire, pertinent et utile. Je vais vous y accompagner moralement et politiquement. Je n'ai aucun doute car à votre volonté réelle de développer votre réseau, mais je voudrais très modestement vous exhorter davantage à doubler d'efforts, car le chemin est encore long et parsemé d'ambition. En tout état de cause, le président de la République saura compter sur votre citoyenneté agissante et votre sens de la responsabilité et de la mesure pour une victoire éclatante de notre coalition dès le premier tour en 2019. Que le Tout-Puissant nous donne la force et la vigueur nécessaires pour affronter ces joutes électorales avec le maximum de sérénité. Mesdames, Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais saisir cette belle tribune pour féliciter très chaleureusement pour le dynamisme de votre comité à la tête duquel Madame la Présidente Rifatou une militante infatigable du développement et d'une sagesse inégalée, imprime toutes ses marques dans le territoire départemental de Thiès. Je vous encourage à persévérer dans cet élan de générosité et vous exhorte à être plus encore la formulation d'initiatives au bénéfice de notre coalition politique. Je déclare clos ici à Tassel la tournée économique du comité consultatif des femmes du département de Thiès en collaboration avec la société Madar à qui je réserve une mention spéciale de remerciement et d'encouragement à travers ces produits de qualité. Je vous en remercie. ginaaw bi ma nuyoo su préfet di nuyu sama sœur Seydou Dengel PCA di nuyu le directeur général du BOS nuyu le directeur régional de l'agence régional de développement Chérif Diagne du Sénégal doyen nuyu Ndeye Fatou Ndiaye la présidente sama xarit sama sœur nuyu suñu xarit Mamadou Mbaye di nuyu nag présidente groupement yi nekk ci commune yi nekk ci département de Thiès yëpp ah Ndeye Fatou lii ngeen ko def yàgg ngeen jóg yàgg ngeen woote waaye bu yàgg ci tool bi kenn bi ba fekk la ci tey nag xam leen ni am ngeen ay góor yu engagé wu pour nit man ci sama frère bi Ibrahima Wade mu ngi ci ak ñeneen ak ñeneen parce que bi ngeen sama bureau am na ay directeur yu leen boole lu tax ñu def ko parce que jigéen ñi dañuy ay loolu dama bëgg ngeen te Sénégal président Macky Sall li soxla c'est simple nee na bàyyi leen ñu wax ñu liggéey loolu lañ sant donc ñu liggéey mais bi ñu xoolee xam nañ yéen jigéen ñi ku leen jiital incha li ñu bëgg ci Sénégal dinañ ko mën a def parce que wax ngeen ko sànq bi nga xamante ni moom la war a développer Sénégal bi PSE. jigéen ñi dañ ci am wàll am solo monde rural bi am ci wàll bu am solo jeunesse bi am ci wàll bu am solo loolu tax buñ leen gisee dañu jóg ka daan di ay jàmbaar da ànd ak soxna yi ñoom dermis ñoom adama diop ay njaay seen di njaay ñëpp ak femme yeneen femme yi nekk ci département bi ñu xam ne man ak sama collègue maire yi nekk ci département Thiès ah il est temps nag ñu jóg jàppale suñu femme te dañoo bëgg modèle bi nga xamante ni keroog bi leen boole ak Serigne Diagne def ngeen fa ñu dëgg ko nga xamante ni dafa bokk ci benn ci trois axes yi nga nekk ci PSE dañoo bëgg modèle bi ñu développé fii ba nga xamante ni dañ koy duplier ci biir Sénégal yëpp ci quarante deux quarante cinq départements yëpp. ma boole leen ak am expérience ku yàgg ci développement muy Serif Diagne ku nekk xam na importance agence régionale de développement yi fukk la ñu ak ñeent donc développement xam nañ ko xam nañ fan lañ koy jaarale te yaakaar naa bi ngeen fa demee da ngeen doon wax ay renforcement ay et cetera et mais dañu na teg yoon boo xamante ni buñ ko defee commune yi nekk ci département bi nañ développé waaye nag. dinañ ko mën a duplier bala nga xamante ni yeneen département yi aussi dinañ ci mën a euh, ci liggéey loolu tax Ndeye Fatou ma sawar trop ci lii ngeen xamante ni jël ngeen ko wax nga ko sànq ngeen demee ngeen san ferme ma ne la ah man de tase samay jigéen laa jiital parce que ñooy samay xarit moo tax ba ma waxee dama ne ko fii ci tase fukki ferme ak juróom la ñuy defal suñu jigéen ñi mu soxla yàlla donc gis naa yi am ci département bi xamoon ngeen koy séddalee nag daal bi waaye man sama jigéen ñii fukk ak juróom lañ ci bëgg pour suñu commune Bassel li ci def nag dinañ seetloo ko gën a bari donc di leen encore rek encouragé di leen wax ñu ngi seen ginnaaw di leen wax ni yéen a ngi ci yoon yi nga xamante ni moom la président Macky Sall tracé mooy liggéey liggéey liggéey ca yeneen ci te lii buñ ci continuer incha allah Sénégal dinañ ko yóbbu foo xamante ni fu am solo la foo xamante ni sax dina euh, romb suñu suñu njox suñu donc loolu laa ne woon dinaa ko ci wax ah di leen wax nag euh, ma sœur Seyna bu Ndiéguène xañ na peut-être amul information yi waaye dama bëgg nga xam ni Seyna bu Ndiéguène Ndeye Fatou Ndiaye présidente du comité consultatif du département de Thiès ci njabootu président Macky Sall bokk loolu am na te dafa officiel mu ngi nii toog dama bëgg jigéen ñëpp xam kii ci la bokk parce que kenn gis ni président Macky Sall di liggéey ci réew mi nga nekk une femme de développement nga ni doo mën a ànd ak mouvement bi mu ci président Macky Sall un mouvement bokk def na sax déclaration presse mais dama bëgg tay ñepp xam ni lay Fatou Ndiaye ci président Macky Sall la bokk dina ko ci développement waye ñu ko Thank you. Merci. Donc, euh, Madame la Présidente Ibrahima Wade boobu ngeen yóbbaale ko yow ni nga ko waxee sax nee na Ndeye Fatou bu xewlee bu ma feebaree sax damay ñëw jar na ko parce que c'est une lionne donc yéen département de Thiès Darwish ñun ñëpp ñu ñoo ànd waaye nag bu ngeen amee day dellu mel ñëw indi poids politique indi poids ci développement. ah mu Thiès yaakaar naa ni dinañ gën a sawar pour jàppale leen mais dinaa xamal ni ñun maire moo pour ménager on ne ménagera dinañ leen jàppale ñun benn lañu dañ am suñu collectif di xàccandoo di dóorandoo te incha allah dinañ développé département Thiès dinañ développé Sénégal ak le président Macky Sall te 2019 bu soobee yàlla dinañ ko xalaat ñu ànd di liggéey maa ngi sant di leen gërëm di di baral nag. du dara yéen a yéen parce damay may la fédération des femmes du de la commune de Tassette ñu sànni ci ñaari kàddu Seynabou Ndiaye dafa xaw a tawat mais secrétaire général bi Rokhaya Sarr laa bëgg bàyyi mu wax waxal jigéenu commune Kassette bi nga xamante ni dañu def fédération bu am solo di liggéey ci PSE bi mais di liggéeyal aussi le président de la République donc Rokhaya Sarr asalaamaaleykum mbooloo mi ngi nuyu ñëpp seen tur ak sant di jiital suñu yoo bi monsieur le ministre du PSE di nuyu le sous-préfet di nuyu PCA yi fi di jiital suñu nuyoo bi tamit bu ko beral nuyoo suñu maire bi suñu Modou Thiaw di nuyu suñu ñaayu xarit yëpp ñuy soxna Ndeye Fatou Ndiaye ñun dañuy wax ne ñun amuñu fayam dañ koy bàyyi ak yàlla ñu ko ñaan di nuyu nag jigéenu département bi yëpp di nuyu plus particulièrement jigéenu commune Kassette ñun mënuñu Mamadou Thiaw ñëw taxaw mu nekk suñu maire mais di sunu magistrature bi mu ñëwee fii slogan bu mu a nekk moom mooy jigéen ñi ñooy samay xarit kon Ndeye Fatou Ndiaye dañu ne li nga wax lépp si ma coow dëgg la waaye dañ naan nit bu ñu ndax baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax yéen su ngeen naan ma coow baax na ba ñu nga xam ne dafa ñëw fekk ñu ci mu ñëw indi politique mu nekk 45 GIE de a Mamadou Thiaw jàppale ñu ñu indil ay financement njëkk ñu indil 20 millions de francs CFA ñu jëlee ko CNS di ci liggéey jigéen ñi di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey bañ def ne fa la yem mu ne déedéet dañuy doon mu doon lan dugal ñu ci PAMECAS defe naa li may wax bu dëgg jigéen commune bi yëpp a ngi fii defe naa ne instant ñu ngi toll ci yoo xam ne ñu ngi am ay financement yoo xam ne presque excédé na ci 200 millions jigéen ñaa ngi liggéey demuñu gendarmerie demuñu police demuñu fenn grâce à qui grâce à notre maire Mamadou Thiaw ñu ne déet waaye ku ne dama fee fekk allègement des travaux mu ne la plus particulièrement pour les femmes mu sampal ñu ay moulins à mur defe naa ne samp na huit moulins à mur yoo xam ne ñoo ànd ànd ak seen i abri provisoire ñu ne déet waaye ma bàyyi kenn. jeunes filles yi tamit ay jigéen te jigéen nekk yeeg jigéen ñooñ ñooy yor kër jigéen ñooñ ñooy yor njaboot mu ubbil amel njëkkati Amazone bi financé leen projet boo xam ne projet euro muy ndox xale yi dinañ si ay ndox ci valeur u 10 ne déeta waay mu ne damay dooli rek ñu jëlaat ay femmes ay xale yu tuuti dugal leen si artège defe naa ne bientôt ngeen gis ñu ubbi fi benn centre de couture bu mag de coupe et de broderie mu tam grâce à kii ak grâce à Mamadou Dia dafa gudd nag bu ñu di wax li ñu Mamadou Thiaw defal yëpp fi la leen di dimbalee. ñu ah, ah. moo tax ma ne ñu toogoon fii di wax ba suba du jeex kon Ndeye Fatou Ndiaye bi ñu ànd ak yow dem ba ci Mamadou Thiaw PNL mu ne luy seen programme. wàllu unité consultative dinaa ko def ma dafa mel ni lu ma téye sama loxo xam naa ne lu mu wax def ko dañu koy ñaanal nag yàlla na gudd fan te ku ne am nit yàlla na gudd fan yàlla nañ ko séntu da koy séntu fu sore sore te yàlla na fa egg maa ngi gërëm ñëpp bis bi sant ñëpp wasala jërëjëf parce que mënoon nañ leen jox xaalis ngir lekk ko kon it dara man ku leen laal bala mu leen laal daal sama kaw waaye rus tawu leen man maay parce que kenn du leen laal mais da ngeen a jël xaalis boobu di ko ful di ko ful di ko ful di liggéey di ko ful di ko liggéey ba tey ngeen am lii ñu sant millions comme ni ko Taba Sarr wax sax boo xamante ni yéen ngi liggéey di dem di dellu kenn musul dégg kenn mu sax ñu woo ko sax gendarmerie loolu dafa am solo macha allah donc yéen ñi. man ak yéen ba taseet mel ni Dakar rek wala borom bu incha allah maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.